di leen jot liit ni ko sëñ Abdul Fattah waxe suñ mag dafa wax ne kaddu gi nga xam ne moom la waroon a wax moom tax moom lay njëkk jot li kaddoom dama ko waxoon ne man nang ma jottali waaleel sama kaddu nee na nang ma jottali kaddu gi wax ma ne ma nang ma njëkkeel ci kaddu gi santal ma sëñ Siidi te gërëmal ma ko ci cër bii nga xam ne at mu jot ñu jox ma ko ngir xam guñ xam sama diggante ak Cheikh Abdoul Ahad Mbacké mu ne loolu dafa fees xolam ba nga xam ne tey jii munta waxal boppam mu ne naa ko waxaaleel ne ma nag sëñ Abdou Lahad dafa ma dafa seqoon nag man ak waajur akuk sëriñ bépp cër boo xam ne nee na nit mas na ko doom mas na ko am ci baayam nee na cëral nag ko nee na bépp cër boo xam ne ab taalibe mas na ko am ci sëriñ nee na cëraloon nag ko kon nag loolu daf ko màndi lool fees ko lool moo tax mu ne bu ñu demee nag ma jottalil sama kaddu ak sama ngërëm ak jàpp gi ma jàppal gi ma jàpp giñ ma jàpp ngir noonee ma sëñ bi teye woon ñu jox ma cër boobee boo demee nag ma jotalal loolu loolu la ma santoon ne naa leen ko jottali nee na ni mu nekk ci xolam aw làmmiñ mënu ko nee tudde ndax sëñ Abdou jaar naa moom nee na foo xam ne lépp lépp mënu ko wax waaw ndax am na ci loo xam ne nee na mbirum baatin la loo xam ne bëgg ko wax nit ñi di ko dégg waaye nag na ngeen xam ne cër ba ngeen ko joxoon sëñ siidi nee na yow dangaa ñëw suuxat ko waaye wàññiwoo ci dara kon nee na mi ngi bokk yépp di bëgg ci cër boobu ngeen ko cëral loolu la ne moon buñ àggee nanga ma ko waxal nee na daal na ngeen xam ne xolam sedd na yëg na cër bi mi ngi koy bànneexoo xam ne it diggante sëñ Fallu ak sëñ Abdul Ahad ak fi sëñ Abdul woon sëñ Fallu loolu la ma waxoon ne naa leen ko wax kon nee na mi ngi leen di mi ngi gë mi ngi gërëm ci cër bi di ci bég lool tey ñaan mu yàgg sëñ Sidi nga yàgg jiite bisub sëñ Abdou Lahad bii yàgg cee woo nit ñi ñu nit ñu yàgg wuy si loolu la ne woon naa leen ko jot kon mi ngi leen di gërëm di leen sant tey ñaan ñu teewe ko waat ay déwén yu bari bu ko defee nag ma jot li sama kàddu gi nga xam ne sëñ Sidi moom ma waxoon ne ma buñ àggee nga nga jot nga nga nga jël fa kaddu kaddu gi sëñ Sidi mi nga xam ne lépp la ci noonu moo ma waxoon ma bu ñu àggee na fa jël kàddu te def fay seede seede si nag mooy ginnaaw bu mu nuyoo bokk yi fi teew yépp siyaare alxalifatul am li taifatil muridiya ayyadahu llahu wa nas wa nasarahu atama muraadahu jottali waa léeg nuyoo sama kilifa sëñ Seex Mbakke moom sëñ Abdul Xaadir Mbakke nga xam ne moom laa àndal maa ngi nuyu ñëpp di leen siyaare di ñaanal sëñ Sidi yàlla àggale yéeneem ci liggéeyal bi mu bëgg ci li muy liggéeyal sëñ Tuubaa ndax li ñu xam ci moom del te jaxasoo nañu moom lool waaye li ñu xam ci moom mooy itteem itteem ji gën a kawe mooy bëgg a nekk taalibe bi sëñ Tuubaa ku doon ku ma doon laaj daal ban itte la am daal itteem bi gën a kawe xam naa ne mooy bëgg a nekk taalibe bi sëñ Tuubaa bu sëñ bi nangul ak taalibeem loolu laa xam ci moom da topp nag mooy ku wér jikko la moo tax yow mën a àndal la ca toppit mooy woyof giñ daa wax ci seen blaat loolu moom nee na ci moom kon nag yàlla na ko yàlla dimbale mu mu mu mu liggéeyam sëñ Tuubaa jàppale ko ci mu mun mu lii ko sëñ Muntaxaa jiital ci liggéey bit ni yàlla na ko ci yàlla defal pëstéef bi mu ci am yàlla defal ko ci ndam bu baax a baax a baax a baax te sëñ Muntaxaa li mu yéene liggéeyal sëñ bi yàlla àggaleel ko bu baax a baax a baax bisu sëñ Mbàkke nag bisam waxtaan ci jafe na yomb na ndax man li ma xam ci moom ku ma ko doon portale loo ne ma sëñ loo xam ci moom man ci ni ma koy tënki nii dama naan jëmm la woon joxane xam ne ku amoon njàmbaar la ku amoon xel la la ca topp mooy ko amoon fit la te xil euh, fit ak xel nga boole leen am ci histoire dañ leen di wàññi ñi ñi boole loolu ndax ñaare am xel boo ko amee saw fit da koy wàññi waaye moom ku yàlla dimbali woon la ba yii amoon na ko amoon na fit am xel mu bari am ak njàmbaar loola nag ku ma doon laajit ne ma ana lan moo doon bëgg sëñ Abdou Lahad moo ci ñett rek laa koy tënk sëñ bi képp laa xamoon ci bëggam la ca topp mooy dëkkub sëñ bi la ca topp mooy xasida yi sëñ bi sëñ bi sëñ bi ci boppam li tax ma tënk ko ci bëgg gi bëgg sëñ moo yóbbaale lu sëñtu tu ku mbokkal sëñ rek mu bëgg la gëm la ñi sëñ defar mu defar ga neex ko mu bànneexoo ko bëgg ci loolu laa seetlu ci ne moom laa gisoon ci moom dëkk bi it li ma ci seetlu mooy bëgg gi mu bëgg sëñ moo tax mu bëgg dëkk bi moo tax lim jàppoon ne waru fee am lépp mu fexe ba dindi ko ba ni sëñ bi ñaanoon ci matlabul fawzayni mën a taxaw bu baax a baax li sëñ bi lim lu mu jàpp ne yell na ci dëkk bi lu neem mu jaral ko ko ngir loola am xaside it li ma ci seetlu mooy moom dama cee teg sama bët ni mu ko doon jànge ak ni ko itteewoo ak li mu waxoon ne lu mu murit sàggan sàggan xanaa war naa mokkal ci xaside yi sëñ Tuubaa ñetti junniy bayit nee na murit bu daal sàgganu murit daal xanaa weesu nag nga fexe ba ñetti junniy bayit nga mokkal ko ci xaside yi sëñ Tuubaa kon foofu la tegoon xasida yi sëñ Tuubaa yi kon foofu laa teg li ma ne ku bëgg ku bëggoon xasida yi sëñ Tuubaa la mu loolu nag noonu mu nuuree ci sëñ bi nag moom ko mayam xel mu leer moo xam ne lu mu la wax rek xikam la xikam yee nag benn mu jëriñ la ci adduna wala mu jëriñ la ci àllaaxira ma génne ci rek xëy na lu man ñetti xikam rek ci yu teew nii ci sama xel rek benn bi mooy daa ma sama digg ci moom mu ne nit ku ne ni ñuy jànge faatiya lañ ko war a jànge fëti yi kenn ku ne ci ñun jàng na ko ba mokkal ko nee na nit boo boo koy jàng lañ la ci war a mën a wax loo xamutoon waaye bi nga ko jàngee ba mokkale ko ni koy fëti ku ci yokku sadda war nga ko xam ku ci wàññi sadda war nga ko xam ndax la la ca topp mooy dafa wax ne koo bëgg a àndal te ànd ba rafet nanga nga ànd ba da koy téyel sa bopp te bu leen ko awante bokk ko bàyyee nee na bu ngeen ko bu ngeen ko awantee waxtu wu toqee <laughs> waxtu wu toqee rek foofu la yëf yi yem boo ko bàyyee fa bëgg mu yem rek la yem boo ko téyelee sa bopp nag dara du ko yàq nee na koo bëgg àndal te ànd sax sa diggante eh, ànd bu sax sa diggante yàlla nee noonu ngay def doo am njàngale la moo xam ne ma ne sa ci yor ëpp ak àlla ba ca topp mooy juf Diouf président Abdou juf mii la ma sëñ blaat nettali ne ma maag koo xam nee na Abdou Diouf damaa seet si ma laaj ko ne ko waaw waaw ab eh, man de dama jàngut ni ñuy yore am réew waaye nag lii ne moom xam naa ko ni ñuy yore aw nit ak ni ñuy yore kër ak ni ñuy yore dëkk waaye am réew nag dama jàngut nee nag abdu ne ko ah yaakaar naa boo noppee mu ne ko yaakaar naa duñu soree de mu ne ko abdu ne ko nu ñuy nu ñuy yore ah, nu ñuy yore aw nit ak kër mu ne ko kër daal ni ko yore juróom yi rek la da wulli sa bopp wulli sa der ngir bëgg a yanoon lori nit ñi ba loola waaye wax nga mën koo dégg mooy mooy ba ci njëkk ba ca topp mooy boo xëyee fu njariñ foo digg njariñ na andi ko ci kër gi ba ca topp mooy bu ñëwee na ko teg ci ëtt bi na ko teg ci bi nangu koo bokk ak ba ba ko bokkee ñëpp it na cee nangoo na nga nangoo gën a tutle ba ko juróomeel mooy baat baat baatu kër gi nag baat ci bopp lay sax baat bi téyel ko sa bopp juróomi yi daal ko ko yorew nit sa adduna dana sa kër dana jag yaakaar naa ko ko yoreb dëkkit sa dëkk dana jag Abdou Diouf ko ku ko yoree bu réew it réew dana jag wa kullu aamin wa antum bi xayrin yàlla na yàlla dimbale wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ay murit lan wóolu yoo xam ne sëñ Tuubaa rek lañu yaakaar yaakaar yaakaar ko def wóolu wóolu ak gëm ak gëm